li si yéenekaay ak Mouhamadou Biteye tal leen ak jàmm ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn source ana ñu ajuma ji weesu day la waa ñoo lànk nag wàccoon ci mbedd mi nag mu neexoon lool ci ñoom nag ñu takkaayu ba dëgër nag nar dàbbali waat ajuma ji di ñëw yemook rek ñaar fan ci weeru décembre journal bi ne jooju ajuma nag moo nar a métti te saf sàpp ndekat place de l'indépendance bi ñu bëgg a tasee rek ngir nag naqar lu yokkute courant bi ak ñu na leen nag ñu ñaxtu fu leen neex suuf sa nañu dëgg la sax gaa dañoo farlu bu baax a ci seen doxum ñaxtu bi waaye kilifa yi nguur gi itam day kenn demul ñu des ginnaaw ci li ñetti nit ci boppam sax day mayu leen nag ñu dajaloo fa di waxtaan ajjuma ji di ñëw incha waxuma laak nag mbooloo mu takkul lu ko di yéen kaay lank day indépendance ci boppam la soxla nag ngir rek dajee nag foofee ca place de l'indépendance te ñu li leen ñu yi ne xëy na nag seen càkkuteef bi day dina sotti ndekat tey jii ci la ëttu attekaay bi di tàmbale rek audition ci ñoom ñëpp nag te docteur Babacar Diop mooy ubbi baal bi Malick Diaw bi ay ak kii di Ousmane Sarr ndekat ñoom la doyen des juges nag di jàkkaar lool tey jii seq ak ñoom laaj ak tontu Walfadjri yéen kaay ni ñu dafa mel rek nguurug Sénégal dañuy wut rek bunt bu ñu jaar ngir génn nag ci coowal Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal ci kaso a di déglu rek ñoom Guy Marius Sagna suñu naataango Charles Gaye ki jéen samp ab laaj rek audition bi doyen des juges tàmbali nag di ko def bis ni que tey ji deltu ginnaaw la ci nguurug Sénégal wala rek ab fem la ngir nag mun a ci guuta gi nga xam ne dugg nañ ci ci coowal yokkute courant bi sut quotidien nañu ñaxtu gi am ni ci yokkute courant bi day gaa ñi ak Macky Sall sol nañu seen dàll ba mu dëgër takk seen digg namm seen làmmañ ngir rek furlil ko may ko doole dalal xelam journal bi nañu ndaje la amal ak taskatu xibaar yi ni ki démb Moussa Sarr mi yor kaddu ne daal yokkute courant bi ci boppam lu baax la ndekat dafay tax rek nguur gi nag mën def koppar yi mu dindi rek ci subvention rénovation ci yaatal gi ñu namm nag ci courant bi ci réewum Sénégal ba mu daj fépp Zator Mbaye bu AFP nekkoon fi ab député ne moom day bir na ko ne daal yokkuteg njëgu courant bi Macky a mu am ci ñoom yërmande Malick Gakou njiitu grand parti observateur nañu moom day kenn déggatu ko nag boobaak léegi dana cel réew mi yëngul lool te kenn xamul ana moo ko waral journal bi nañu grand parti ci boppam dafa mel ne rek du grand mukk te du dem ñu dem seeti nag gis-gisu waaraate ginnaaw jamu nekkee woon na source a nañu li wax loo rek waaraatekat yi oustaz Alioune Sall ne lislaam ci boppam day may xalif bi ci boppam mu joxe ndiggal nag ñu suul kenn ci dëkkam mbaa rek ñu bañ ko faa suul imam Kanté ne nit ci boppam day warta tënku nag ci ay waxu kalaw kalaw ba tax rek nga naan diw mi daal kenn du ko suul rek ci armée lu jullit yi amel xalifa Niass mais ni koy feelu naan nag jullit day ak lu munti def ci àdduna daal bu faatoo rek a yéene kaay nañu lu mel ni day dafa mel ni nag moom moo dal jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo doy jëfandikoo yenn diw yi ñuy jaxase nag te ñoom ji koy defar day du kenn koo xam ne rek ab dermatologue nga journal bi nañu ñu bëri ñuy diwoo nag yooyu la diw daal seen yaram nag mi ngi yàqu yàqeet te yëf yi nag ñi koy seetaan muy gën di law ci réew mi may laaj rek ndax xees dong jar na yenn yi ba mu lay jural musiba